asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, sëriñ bi samaahati cheikh Isxaaq Bakke ibn cheikh Mouhamad El Bachir ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu lajnatul ishraafi wal mutaabaa di kuréel gi nga xam ne moom la cheikh Mouhamad El Muntaqa Mbakke. samp teg ko ci loxal sëriñ Muntaxa Mbakke Mamor mu ànd ko ak sëriñ Mbakke Abdourahman sëriñ Hamdul Moustapha Diop ak man mii kon ñu ngi lay nuyu ci turu sëriñ Muntaxa Mamor ci turu na bi di la ziyaara di tatagal sa jataay bii nga xam ne mooy jataayub Cheikh Mouhamadul Muntaxa di jaar ci yow di jottu di nuyoo boobu ak ziyaar boobu cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul aam lil muridin xafisahu di nuyu mu assasa bi di fondation bi nga xam ne ñooy taxawu daara ji yittey daara yittey jàngalekat yi yittey donga yi yittey mboolem ku fa yëngu ba tax liggéey bi mën a dox te sëriñ Moustahine Mbacké nekk ci bopp bi te ngi nii toog di nuyu it idaara bi direction bi ci njiital sëriñ Abou Madiana Jaxate ak soxna maam Xawa Dem di nuyu mboolem jàngalekat yi mboolem yarkat yi mboolem euh, muraaqibuun yi mboolem liggéeykat yi euh, sëriñ bi Euh, laj na bi nga xam ne ñu ngi wax ci aw turam sëriñ bi Cheikh Mouhamad Mountakha moo ko san moo ko sampoon sëriñ Mountakha Mbàkke Mamoor jiite ko li ko taxoon a jóg mooy ànd ak daara ji di ko gunge ci ay xalaat di ko gunge ci lépp loo xam ne day tax njàng ma ak yar ba dox mu bokk ci liggéeyam nag bu ñu tolloo fii ci at mi mboolem ña nga xam ne ñoo fa tari alquran ñoom lañu seet ba jàpp ne wattu nañu alquran ñu dikk fii fi Touba ci kër euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha ci Daarul Minan laj na bi organiser jataayub tari ren ji ñi nga xam ne ñoo fa bàyyi ko toll nañu ci fanweer ak ñaar loolu di ak yokkute gu am solo ndax dafa mel ne ba ñu tàmbalee ñëw fii di taris nekkoon nañ juróomi nit ak juróom-ñaari nit fukki nit ak nangam ñaar fukki nit ak nangam ba daaw muy ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñu dikk ci fii tari si fi macha allah tare bu rafet muy lim boo xam ne mësee see yëgg waaye ren di alhamdulilah mu doxaat yeneen tànk gën a jëm kanam lim bi àgg ci fanweer. ak ñaar yoo xam ne ñoom ñëpp alhamdulilahi biñ leen seetoo tari nañ alquran tari bu teey tari bu rafet tari bu ànd ak tajwid tari boo xam ne ñi leen teel ñoom ñëpp saxal nañ ne gone yi day wat nañ alquran gone yi day liggéey nañ ci ñoom liggéey bu wér euh, laj na bi nag ni muy organiser tari bi niñ ko daan waxee fanweeri donga lañu ak ñaar laj na bi day tànn fanweeri jàngalekati alxuraan ak ñaar yoo xam ne duñu bokk benn barab bu ñu jóge barab yu bare bari lañuy ñu jóge ñooñu benn dongo bu nekk ñeenti sëriñ daara ñoo lay téyel benn dongo bu nekk ñeent a koy téyel ñeent ñooñu kenn ku nekk da koy téyel fukki xisib ak juróom bàyyi ko jox ko moroomam kooko teel ko fukki xisib ak juróom kooko jox moroomam mu tariwaat fukki xisib ak juróom koo ko jox moroomam ba nga xam ni su kaamil bi yeggee fekk na ñeenti sëriñ daara yu xam alxuraan te mën a jàngale ñoo ko topp ba saxal ci moom ak mokkal wala ñàkk a mokkal e, tari boobu it doonut loo xam ne dañ koy bàyyee kii téye la rek mu dem ci am xelam déedéet laj na bi dafa liggéey fiche fiche boo xam ne moom mii téel gone gi fukki isib ak juróom lépp lum ci seetlu ci ab gag am na fu mu koy noté lum ci seetlu ci yàq yàq ñu def ko ñaari façon yàq yàq aw xaraf am na fu mu koy noté yàq masque am na fu mu koy noté ab runge am na fu mu koy noté boole ci note saar wa runge ba nekk ak aaya ji runge ja nekk xale bu fekkee dafa runge ñu topp ko topp ko topp ko te mënta génn ci runge ba kooku ab gag la kon fiche bi noon dañ ko rëdde muy màndargal gag yàq xaraf yàq maska runge saaru runge wa aayay runge ja gagu runge ba noonu lañ ko toppee ci fukki xisib ak juróom yu nekk nga xam ne kiiteel xale bi su noppee moom xamut xale bi lan lañuy àtte ci moom ki téel xale bi su noppee moom fukki xisb ak juróom yi mu ko téel la xam xamul la ca des këyit wi di ñeenti këyit yooyu nga xam ne moom la toppee gone gi su noppee dañ koy indi ci commission bi laj na bi laj na bi nag mooy toog xool résultat yi nga xam ne moo nekk ci këyit yooyu seet ko ba xam xale bi lu mu gag lu mu runge lu mu yàq ca loola lay sukkandiku atte xale bi mokkal na wala mokkalul te it xale yëpp it foofu lañ leen di jaarale am na it ci ay eggat loo xam ne moom lañ rëdd wax ne kenn waru cee yegg waxuñu kenn war na ci war na koo am fukk gàkk ak juróom lañ wax ne kenn waru cee yegg waaye tari bi ni muy demee boobu ak tey ñun xam nañ ne bu ñu arrêté woon ci juróom-ñaari gàkk kenn waru cee yegg incha allahu ñiy dikk fii di tari si ñoom ñëpp dañ ci génn kon alhamdulilahi laj na bi def na liggéey boobu ak dongay soxna jaare yi ñi leen téyel di fanweeri sëriñ daara ak ñaar bis naka tey saxal nañu ci kanamu yàlla ci kanamu taarix ci kanamu sëriñ bi wax ne xale yii fi tari sëriñ ji alhamdulilahi di fanweeri maam jaara ak ñaar ñii mokkal nañu alquranal karim kon ci loolu la commission bi defaree ay diplôme yoo xam ne sëriñ bi danga leen ko jébbal naka noonu it ñi nga xam ne ñoo jeexaloon lu weesu lu lu ëpp ñetti at ci gannaaw jàngoon alxuraan ba mokkal ko doon jàng xam-xam ak arab ci daara ji ñoom it am na ci juróom-ñett yoo xam ne jeexal nañu ren ji ñu war a leen a jox seen lijaasa ñoomit it laj na bi xool na seenu liggéey ba defar leen ay diplôme kon loolu sëriñ bi mooy liggéeyu euh, commission bi ak mu nekk commission bi nag ci njiital sëriñ Muntaxa moom Mamor mi ngi wàññi ko di ndokkeel sëriñ bi tàmbalee ci Cheikh Mouhamad Moustapha mi nga xam ne gàncax gii mooy ki defoon jiw wa ci suuf te suñ borom def ko muy jiw wu mucc ayib gàncax seq ci goo xam ne gàncax gu am barke la goo xam ne moo génne lii nga xam ne mooy résultat kon yal na yàlla dolli ko ay leer dolli ko ay ngërëm ca bare barsax Cheikh Mouhamad Mountakha mii nga xam ne tey jii moo yor liggéey bi. moom it yàlla guddal aw fanam lool te defal ko ak wir lool xam nañ yitte jim jox daara ji yitte ju kawe la yàlla suñ borom àggale ko fa mu ko yéene ak fa gën a kawe fa mu ko yéene lépp di barke lépp di leer te lépp ñu ànd ko moom wàññi ko it laj na bi di gërëm mbooleem ñi nga xam ne ñooy sëriñ daara yi nga xam ne téye na leen fi diirub ñaari fan ñu fi xëy si 7 heures matin di fi nekk ba 6 heures 7 heures ci ngoon wala sax timis wala gée ngir téyel xale yi ñoom ñëpp laj na bi mi ngi leen di gërëm di leen sant ñaan yàlla barkeb téere bi topp ci ñoom laj na bi mi ngi ndokkeel donga yi nga xam ne ren jii ñoo tari alxuraan e di ñaan suñu borom def leen mag te alxuraan yi nekk seen dënn suñu borom def ko ak leer ak barke goo xam ne dina dellu ci ñoom dellu ci seeni waajur dellu ci askan bi xanaa li nga xam ne moom la laj ni bi di mujj di mujj ci ay wax eh, sëriñ Muntaxa fàttali ba ko léegi mooy mu ngi dénkaat waajur yi liggéey bu réy bi nga xam ne jàngalekat yi di daara ci def na ko ci gone yi gone yi jàngal na leen alxuraan bañ mokkal ko mokkal gu rafet ñu taxaw yar leen ci jikkoy lislaam jikkoy taalibe yar bu rafet kon ak fuñ mën a jël jàngalekat yi wax nañu ne dem gi bu buñ dikkee lu bari dañ koy fëtt ñoom ñu nekkaat ci ñoom di toppaat loolu nag ah na koo fanq ci kaw waajur yi taxawu leen taxawu seen ëlloo ba nga xam ne fëtt googu lu am ngën ji xam-xam mooy alxuraan ci moom lañ tàmbalee def ci coono ba xëy am ko kon nañ leen ko sàmmal bu baax jàppale leen ci bu baax ba alxuraan moom fu ñu mën a jëm dootuñu ko ñàkk kon ñu ngi taxaw la foofu e di waññi ko waat di ndokkeel sëriñ bi di ko sant di ko ñaanal yàlla sëriñ Isaac ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar eh, di ñaan yàlla seen jotaay bi yàgg lool ngeen yàgg ko jiite. mu mudiru am di sëriñ abu Mbacké xam ngeen sëriñ abu Madiane Diakhaté xam ngeen di waxtu yi ma ca eh, réew yi Makka di jooxal faratay xaj yàlla suñ boroom sàmm ko mu dem te dellu si te nangool ko ak xajam defal ko xaju mabruur di ko gërëm bu baax. ak mbooleem ñi nga xam ne ñuy yëngu ci liggéey bi. Eh, muraaqibuun yi sëriñ Afia mi yor wàllu eh, wàllu muraqaba ci njàng mi ak sëriñ jaxumpa eh, mi Abdoulaye jaxumpa yor wàllu muraqib ci wàllu comportement yeeg yar bi ñoom it lañ ne mi ngi leen sant baax ñaan suñu borom dool leen tawfiix ba li ñuy mébét ci liggéeyal sëriñ bi daara ji ñu àgg ca lépp di ay ngërëm te di ay leer naka noonu di gërëm mbooleem jàngalekat yi nag jàngalekat yi ak liggéeykat yi ak yarkat yi laj na bi mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp kon ñu ngi taxaw la foofu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.